fexeel nag ba nga xool yonent bi ndax daana lekk alalu jàmbur yi ci ay nax ndax loolu dundam la woon mbokk yi ku xam benn yoon fu yonant bi mos a waxee saxaaba yi ni leen indi leen jox ma ku ko am benn yoon lancé naa le défi indi leen jox ma ku ko dégg na ko wax mbokk yi benen bi xam ngeen ni borom bi nee na wala taakulu amwalakum baynakum bil batil yàlla nee na xaraam na ngeen lekk seen alal seen diggante yonente bi nee na inna allah amara al muminina bima amara bihi al mursalin yàlla li mu digal yonente yi la digal nit ñi wallahi yàlla amul lu mu beral benn yonent bàyyi julit ñi lépp lu mu sant yonent yi ci jaamu yàlla sant na la ko lépp lu mu leen tere ci mooy yàlla tere na la ko inna allaha amara almuminina bima amara bihi almursalin bokk na ci li mu leen wax lekk leen alal mu teey alal booy lekk danga ko mën a justifier justifier ko mooy alal boo liggéey liggéey bu lew liggéey bu dagan waaye nga bëgg a toog ni nit ki jox ma maa la gën a tedd diw moy sama baay diw moy sama nangam man dañu ma wara jox man dama wara tedd dama wara tok lu tekk mbokk subhanallah li bu ko yonent bi defo ndax société dina ag fi su yonent bi toogoon umar ibn khattab mo na ah, mo ne ko tool sangam sasna la ko bàyyi ko abou bakar mo na ah, mo ne ko ay nak sangam la la sas indil ma bu yonenti bi defoon loolu lu muy bàyyi ci alal xam ngeen mbokk bi yonenti bi gaay ni ñaata la bàyyi ci alal ñaata yonenti bi muy génn àdduna ñaata la bàyyi matul juróom-ñaari dërëm sabaa dananiir gis nga loolu noonu boo ko calculé ci suñu xaar dina ëpp juróom-ñaari dërëm mais lu oyof la te yonent bi loolu wu ko de deewul mu des fi de avant muy gaañu dafa xëm lu yàgg xëmmili ko bisu samedi bi mu ximbali koo laaj ne waaw weccet bi nekkoon sama poos anam yaa aysa ne ko mi ngi fële mun a joxe leen ko saraxe leen ko yellul yonent dee bàyyi dara xëm xam nga jigéen sa soxna boo xëmee dootul tal leneen loolu moo tax yaa ñoom yaa aysa ak xafsa comme yonent bi nee na leen joxe leen xaalis bi ñoom ñu dem ba caag yonent bi xam ñu jooyoo tim ko di toyal morso di ko gennel tangor bi yonent bi xëmmali ko waat ne ndax saraxe ngeen ko ñu ne ko dedet ñun yow lañu talagum bala ñoo saraxe yonent bi ne wallahi innakum la antum sawaaxibu yusuf yéen dal yéen ngi melni ni rek jigéenu yusuf ya man nar na de rek bàyyi khalis rek jigen ñi tiit daw jël lolu saraxe yonent bi deena bàyyiwul dërëm deureum buñu ko don bu mu momal bopam bàyyiwu ko bal yonent bi gañu ne yirim dañ ko tayle ngir dépense yonent bi ni mu tollu mbokk yi su laajoon dina am problème dépense ah su ne woon jox leen ma dina am problème dépense su ne woon leen ma toll dana ko am su ne man may muhammad jox leen ma ndax dana am problème bobu mais xam na ni bu laajee dana ko justifier yow man qiyam te warul laaj ndax munu koo justifier ndax loolu nax nit ki lekk alalam la moo tax yonent bi rus ko ndax rus naa taxaw ci kanam yàlla naan dan maa jox lii maa laaj lii tool sàngam maa ko baylu nangam nangam rus na ko moo tax yonent bi jooy ñu saraxe loolu xoola yéreem ñu tay la ko ngir lu mu dépensoo te sahaba yi nekkoon fi am ñu am Ousmane ibn Affan gorom la dafa bëri la woon lool Abdourahman ibn auf dafa bëri la lool sahaba yi amoon nañ mais yonent dafa daawul laaj ndax xam na ni summa la tusalunna yawma idin ani naim borom bi nee na dërëm yeeg ñaar dërëm yi danañ leen ko laaj yawmal qiyama comment ça fait-il nga toog nag ne nañu la jox yow parce que da nga sant sàll nan la jox yow parce que sa ahmad sàll sa papa gën nit ñi papa nit ñi mom duñu da yow nga mëna laaj sa tol nañ ko bay sa auto sax dañ koy yenu yobul lako no koy laye yow yowmal qiyaam ndax yonent bi defon nako ko motax borom bi ne wala taakulu amwalakum bainakum bil batil mbok yi yonent bi da daan motax mu daan wax ni kana nabiyullahi daud yakulu min amali yadihi yonent bi dafa gëmoon liggéey dafa dal commerce yonent bi da doon sam ndax xamna ni su toge ku tok defo dara bëgg dundu di nga triandé ku tok defo dara bëgg dundu di nga triandé motax nga bëgg tok tedd amul ku la ko wax nax damay tok tegg ah non non lolu mom lolu mom mo xam nga dang koy def fogg ni da tag sa bop fekk da xass sa bop yow la fañi ñu bal dañuy yelwaan yelwaan liggey la jigen ñi dañuy liggey yow nga ni yow da tok sa lepp di dox nar nga nax nit ñi te sax ku juk ku ragal yalla ku xam war na ko moytu baat bobu yonante bi da ko ragalon doon na wax ni ñaari loxo fu ñu dajee bi féete kaw moo gën xam nga boo taxawee nga nekk sëriñ tàllal sa loxo taalibe bi tëj te nga foog ñu ne nga am barke amoo barke taalibe bi la gën moom mi ñàkk ñëw jox la parce que ba la joxul doo lekk kon bul jàpp ne yaa ci teraanga de mais da ngaa xaslu sa bopp liggéeyal ñaqal jëriñul te moo lay may dignité mbokk yi bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu dajale ku nekkoon imaam ci jàkkaam moom amul waxtu bu yonent bi musa tarda ci jakkam ludul bi mu febaré bi mu feebaree samedi ci guddi la wul timis ak gé ak fajar jiitewu ko samedi ci guddi wul timis jité wul gé ndax dañ ko xëc mu xam ñu xëccat ko mu xam mu néna abou bakkar jité jigen ñi ay sa xam ne abubakar dafa gaaw joy soko né jité faté du ko agal joy ay sa ne umar jité yonent bi xam ba jàgg dégg Umar di jàng yonent bi ne laa yaba allahu wal muminuuna illa aba bakar yàlla bañ na jullit ñi bañ na kenn du jiite jullit ñi fekk may dund lu dul abu bakar Umar dégg loolu arrière abu bakar avancé foofu rek la mos a tàgg julli ci xare yonent bee jiite julli waxtu wi juróom mooy jiite julli xew-xew yi mooy jiite yow nga ne ku baax nga ku ragal yàlla nga nit diine nga kenn du dajak yow jàkk lay bi mooy noo dama tedd parce que bu ma dajak ñoom dañ may sonal fekk seytaane moo koy def yonent bii la gën dafay dem di julli ji